Yewwi Askan Wi di profiter ci tribune bi ñu jox pour nuyu gërëm sénégalais yi ku ne fa ci biir réew ak bitim réew Yewwi Askan Wi woote tey eh, ci kàddu yi yi nu war yëkkati wax ak askan wi nii lay tëddoo Déthié Fall man maay njëkk wax après l'honorable député Ayib dafe dina wax aussi après l'honorable député Rama Bodian après le professeur Dat le président Lamine Dianté la présidente ay Mbodj tëj woote bi ku nekk mën na imaginer li ko waral fan yi yëpp kenn déggul yeewi askan wi ñëw wax ak sénégalais yi wante ku ne xam na ni leader boo jël ci Yewwi Askan Wi mi ngi ci coalition coalition bi nga xam ni ñoom ñoo waroon dem élection présidentielle donc ku nekk individuellement li nga waroon wax collectivement dans Yewwi Askan Wi ci coalition ba nga nekk organisation ba nga nekk le combat que Yewwi a toujours mené yaa ngi ko doon mëne foofu mais li wér mooy Sénégal ñëpp xam nañu ni si l'heure est grave danoo bëgg dégg yeewi askan wi danoo bëgg gis yeewi askan wi ndaxte kenn umpulewul ces trois dernières années le combat de yeewi askan wi pour la démocratie le combat de Yewwi Askan Wi pour les libertés et Yewwi Askan Wi ne va jamais faillir boo leen gisee li xew actuellement ba ñuy repousser élection li ko waral en premier Yewwi Askan Wi la parce que beaucoup de tentatives ont existé pour diviser ay leaders Yewwi Askan Wi beaucoup de tentatives ont existé pour ne pas avoir de candidat Yewwi Askan Wi beaucoup de tentatives ont existé pour ne pas voir quelqu'un venant de Pastef être candidat mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam président Macky il a été surpris de voir que parmi les 20 candidats, il y a 6 candidats issus de Yewwi Askan Wi 6 Déthié Fall Diomaye Habib Sy Cheikh Tidiane Dièye Mamadou Aliou Dia Malick Gakou une surprise totale Mais ce qu'il a ignoré, c'est que nous avons travaillé avec compétence, avec rigueur, avec efficacité. Ce qu'il a également ignoré, nous avons une forte expérience des élections, comparable à l'expérience de tout un chacun bi nga xam ni mi ngi ci yeneen appareil C'est ça qui a fait que parmi ces 20, nous avons 6 issus de Yéwi Askanui. Et il sait pertinemment que s'il organise des élections, ce sera Yéwi Askanui ou Yéwi Askanui. Et il est persuadé qu'il n'était même plus évident que son candidat soit au deuxième tour. et qu'il était même très probable que deux candidats de Yewwi Askan Wi soient au deuxième tour. Et c'est ça, la vérité, qui a fait que d'un coup brutal, il a arrêté l'organisation des élections. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue parce qu'ils sont des millions de Sénégalais yi nga xam ni nooyi wuñu gëmuñu lu dul Yewwi Askan Wi parce que on a été là toujours là à leur côté on a bravé le gaz lacrymogène on s'est sacrifié on a donné notre vie pour la nation amuñu jotu leneen amuñu jotu keneen lu dul jotu li nga xam ni moom la askan wi bëgg looloo tax askan wi jox ñu cette confiance looloo tax mu xam ni organiser nañu élection mooy Yewwi wala Yewwi jël na ko mais loolu waru ko mën a yóbbee muy dàq ay élection ñu taxaw di seetaan dàq ay élection ñu taxaw di seetaan mbiru chaque sénégalaise la ak chaque sénégalais. Et c'est un combattant qui vous parle. mbir bu la ñoree day laaj taxawaay mbir bu la ñoree day laaj jéego le président Macky Sall a fermé la bonne porte de l'histoire le concernant c'est quelqu'un aujourd'hui qui a délibérément choisi la petite porte de l'histoire alors que malgré na mu jotoon def ku nekk naqarlu ko nit ñi gëmm ci à la ni ko organiser l'élection nga dem mu mënoon organiser élection yooyu dem mais mu plonger le Sénégal dans un chaos indescriptible ku xam réew ni muy tëddee ni mu bindoo xam ni le pays est économiquement paralysé paralysé parce que boo demee ba perdre la confiance des investisseurs qu'ils soient nationaux ou des investisseurs étrangers xam nga ni amatoo issue et est-ce qu'il a le droit aujourd'hui avec ku nekk la nga def ku nekk taxawaay ba nga am ku nekk li nga jot a dugal biir Sénégal pour bànneexu boppam coobare boppam mu paralyser tout un pays jël dix-huit million de Sénégalais qui ont toujours été respecté partout dans le monde foo mën a nekk ci biir réew ak bitim réew ñu respecté la mu jël ce respect là aujourd'hui tàggatee ngeen ko ba nga xam ni kenn mënatul jël chaîne booy seetaan te doo gis ñuy chahuter le Sénégal il n'a pas ce droit-là et on ne lui laissera pas ce droit nous remercions tous les partenaires yi nga xam ni ñoo ngi agir ñoo ngi wax que ce soit les États-Unis la CEDEAO l'Union européenne képp ki nga xam ni yaa ngi yëkkati sa kàddu nous te remercions que chaque sénégalais chaque sénégalais yokku taxawaayam parce que in fine le président Macky Sall bu gisee ci ñu détermination bi war dina xam ni lii mu bëgg mënul ne te li mu bëgg dafa warul ne parce que cette tradition démocratique que nous avons da ko dépassé moom da jiitu moom te da koy romb moom donc mënu ko définir mënu ko rebelote et nous lui disons très clairement d'organiser proprement son départ le 2 avril de l'organiser proprement parce que loolu mooy sagam loolu mooy li koy taaral parce qu'à partir du 2 avril nous l'avons dit et répété il ne sera plus considéré comme le président de la République du Sénégal et bu gisee ces fortes pressions qui fusent de partout war na xam parce que c'est un politicien que le vent de l'histoire mi ko fiy war na xam de façon très claire que li jotoon am mënatul am Yewwi Askan Wi comme d'habitude va mener la lutte Yewwi Askan Wi va mener le combat pour la démocratie pour les libertés on ne peut pas accepter en 2024 qu'on retire à un organe de presse sa licence que ñuy suspendre ay organe de presse c'est inadmissible dans ce Sénégal-là et loolu Yewwi Askan Wi du ko seetaan on fera tout ce qui est nécessaire d'ici le avril tant que continuer di ko wax président de la république jusqu'au 2 avril parce que loolu la ko constitution bi jox mais bu 2 avril weesoo il ne le sera plus il n'a qu'à prendre les dispositions aujourd'hui pour que l'élection se tienne et que sénégalais yi ñi ni tànn ñëpp xam ko mu yeewi askan wi ñu gagné élection yi di wax aussi que képp kuy militant wala militante Yewwi Askan Wi ak foo mën ne ci biir àdduna bi ne vous laissez pas entraîner par la division au moment du combat il faut souder les rangs bañ a déglu ay sos bañ a déglu ay yàq parce que Yewwi Askan Wi ca la ma xam ay góor ñoo fa ne ñi nga xam ni ñoo tànnal seen bopp des ci opposition alors que mënoon nañ def leneen du ñu jëw du nu wax ci ginnaaw ni lu ñuy wax dañ koy assumer directement et proprement et en face bu leen kenn dugal division ku leen ciy dugal rek xamal ni kooku mi ngi xeex contre combat bi ñu nekk mi ngi xeex pour indi la division ñett at a ngi nii ku nekk ci ñun ñoo ngi lay bëgg jaxase keneen ñetti at a ngi nii amul lu ñu deful pour diviser ma man ak le président Ousmane Sonko mais ils n'ont pas réussi et c'est pas aujourd'hui qu'ils vont le réussir parce que xam na luy union des forces et des cœurs surtout quand il s'agit de faire face au régime et au président Macky Sall. Restez plus que jamais ku leen bëgg indil division xam leen ni moom mooy l'ennemi de ce qu'on est en train de faire et combattez le farouchement parce que des fois ils nous infiltrent et combattez-les farouchement parce que fii ñu nekk nii taxawaay. bu nit taxawul fu nit flanché jox nga porox ndoll le président Macky Sall et il ne faut pas lui permettre du tout les initiatives sont nombreuses et elles sont à saluer parce que ku yëkkati ni dama bëgg xeex dama bëgg taxaw pour suñu démocratie mënoo def lu dul applaudir mënoo def lu dul féliciter et Yewwi Askan Wi comme ni mu ko mos defee toujours va s'ouvrir à toutes ces initiatives et déroulera un plan d'action un plan d'action qui fera que le président Macky Sall respectera le calendrier électoral et amul engagement bu ñu mës a jël te respecté ko et cet engagement tàmbali na est mise en place la présidente Aïda quand elle prendra la parole, reviendra sur ça. Mais pour vous dire que vous avez été nombreux à demander la présence, la remobilisation de Yehui Askanoui. Nous sommes là, collectivement, bien que individuellement nous n'avons jamais été absents. Parce que dans notre stratégie, il était dit admis que chaque candidat avait la possibilité de mettre sa coalition et de mettre en branle l'esprit Yewwi Askan Wi c'est cet esprit avec comme soubassement la rigueur la méthode l'intelligence qu'on connaît des leaders de Yewwi qui a fait qu'à sa grande surprise sur les vingt candidats le président Macky Sall s'est retrouvé avec six issus de Yewwi Askan Wi que sont Déthié Fall Diomaye Habib Sy Cheikh Tidiane Dièye Mamadou Dia et Malick Gakou et ça a été une très grande surprise pour lui parce que il savait bel et bien qu'en organisant ces élections c'est un candidat de Yewwi Askan Wi qui allait devenir le prochain président de la République et même qu'il n'était plus évident que son candidat soit au deuxième tour. On pourrait même avoir un scénario où ce seraient deux candidats de Yewwi Askan Wi qui s'affronteraient au deuxième tour. Ça a été un cauchemar, un cauchemar pour lui. Un cauchemar qui l'a amené à mettre le frein sur un processus électoral qui ne lui appartient pas, qui appartient à tout le peuple sénégalais connu pour sa grande tradition démocratique et pour sa régularité dans l'organisation de l'élection présidentielle. Ce tort et ce préjudice qu'il nous porte, qu'il porte à l'image du pays, doit être aujourd'hui combattu